sigil te weytoo madru yi tuub nan ci yow bu wér te bul faale ka wuy seek ka farjekki su fekkoon da laaj carte say candidat ni wiiw na yaawat ña daawoote ña daawaate Moustapha asalaamaaleykum soxna si ñu ngi lay nuyu di nuyu mboolem ñuy teewlu jotaay bi lépp ci réseaux sociaux yi ak fu ñu mën a féete ci biir réew mi bitim réew ñu ngi ñëpp. waaw bis bi eh, ñu ngi ko waajal kem ni ñu ko doon waajal rek at mu jot mooy bu bis bi see commission yi dinañ daje kenn ku ci nekk wàll wi la yàlla dogal ñu eh, féetali fa nga war faa liggéey ci màggal gi. ñu saytu ko waxtaan ci tàmbalee ko ca màggalu daaw ga li ci jaaroon ci yoon ñu fexe ba loolu nan lañ koy maintenir gën koo avancé du ñàkkit ay benn benn ñu ci seetlu yoo xam ne xëy na ay njumte la. yooyu itam ñu fexe ba mu bañ a baamu. bu ko defee nag ci commission bi ñu fay tamit commission culturelle bi eh, yàlla dogal ñu mu tënku rek ci ñetti sous commission yoo xam ne moom moo ëpp solo ci liggéey bi benn sous commission bi doon sous commission drous nga xam ne ñoom lu aju ci njàng mi ci màggal gi ci alquran ji xasaayid yi ak azkar yi lépp ñoom ñoo koy saytu tàmbalee ko ci subag màggal gi bu ñu xëyee eh, ñu ngi boo demee tey ci biir bayt rek ci kër bi da nga leen foofu la ñuy nekk bu demee ba ngoon jot ñu toxal jataay ba yóbbu ko ci baasu wilaaya bi ca penku ba foofu la ñuy continuer drus bi alxuraan ak xasaayit ak lépp lu baax ci njàng ba fajar jot loolu mooy sous commission drus bi beneen sous commission bi recherche ak documentation te mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo saytu wàllum euh, xam bi ci di soññee di fàttali cosaanu màggal gi waaye itam li jëm ci exposé bi euh, ñu di ko saytu di ko gaaral ngir nit ñi mën cee jële ay bind gën cee jariñu waaye itam gën a fàttaliwaat it bis bi maanaam cosaan la ak it importance bi mu am ndax njariñ la lu bari moo ci nekk loo loo xam ni képp ku ko xam dañ ci jëriñu si. waaw loolu tamit commission bi nga sous commission bi nga xam ne dañuy wax recherche ak documentation ñoom ñoo féetewoo loolu waxtu ci nekk eh, ñooy bay seen waar ci ci ci côté boobu fii ngeen ñëw nii tey muy exposé bi ñoom ñoo fi liggéeyee. mu des beneen sous commission muy sous commission sous commission animation nga xam ne ñoom ñoo yor wàllum animation bi ci bis bi jëm ci njàngum xasaayit mi ci diggante kuréel li ak rajaskat yi loolu ñoom it eh, loolu mooy seen wàll ci bis bi laata bis bi di ñëw lañ ko doon tàmbali di piloté ku eh, wër mboolem kuréel yi nga xam ne ñoo aju ci section bi kenn ku ci nekk ñu dem xool programme am ak wàccaayam fan la toll ngir lépp rek mën a maase tege ci yoon ba buñ ñëwee ci bis bi kenn ku ci nekk liñ doon yaakaar ci yow doon ko séntu ci yow ci programme boo xam da nga ko war a jàng ci màggal gi nga nga nga jàng ko kazalika yeneen jàngati xasida yi nga xam ne tamit bokkuñu ci mbooloo waaye xam nañ leen ñuy jàng ci xasida ci njàngin wu jaaru yoon tamit am na ci ñoo xam ne danañ dem ci ñoom wax ak ñoom ngir jox leen ay heure ci bis bi eh, bu ñu ñëwee eh, ci màggal gi bu seen heure jotee ñu ñëw yëkkati xasida comme niñ ko daan defee at mu jot loolu daal ci tënk mooy programme commission culturelle bi jërëjëf sëñ bi leer yooyu am na solo wante bi ngeen ko waajee ba yegg si fii loolu loolu loolu ma la waxoon rek mooy eh, dundal ko ci jàng alquran ak xasaayit zikar salaatu ala nabi waaye tam itam fàttali cosaanul màggal gi ak it ki nga xam ni moom la yàlla dogal ren eh, ñu jëmale exposé bi ci ñëw ci moom muy Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridiin ab taxawaayam relation bi ak njabootu Serigne Touba gi rawatina taxawaay bi mu amoon ginnaaw Cheikhul Khadim ci jàppale Cheikh Mouhamadoul Moustapha yooyu itam waxtu ci nekk eh, ñu di ko fàttali ngir bokki taalibe jël ci ay bind mën cee mën cee jëriñu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 ñu lay laaj màggal gi nan ngeen ko préparé. waaw jërëjëf soxna si mu mel ne dinañ am mbégte ak contentement bu baax ci laaj bu am solo ba mu xam ne laaj nga ko màggal gi nag niñ ko waajalee commission sociale bu nationale taxawaay bi mu ci waajal euh, dafa nekk taxawaay bu am solo boo xamante ni ngir waajal bëgg rek màggal gi lépp jàkk moo tax mu séparé ko ci ñetti comi sous commission bi ci njëkk développement économique beneen bi di santé beneen bi di bernde ci ñi mu séddale ko nag tey fi ngeen taxaw nii mooy développement économique. Euh, liñ ci jiital nag ci commencement bi mooy doon ñooñu fexe def le tout pour dajale li nga xam ne mooy corps de métier yi ñu am ci mbooleem section yi ngir ñu dajale leen xam ni ñu toll ñu def benn exposition ngir màggal ci exposition yi. exposition yooyu nag euh, section yu bëree bëri participer nañ ci indi nañ ci tamit mooy li ngeen gis sànq ay matériels yoo xam ne wuute nañ te yooyu yëpp ci section yi lay la jógee muy section yu wuutee wuutee lay jóge bu fekkee ma xam ne ñoo leen wax. Euh, lu toll ci juróomi section wala juróom-benn section ñoom ñoo fi indi ci exposition yi bi ci jiitu muy Touba def na ci exposition bu am solo Louga euh, Kaolack euh, Thiès Dakar ak Taïf yooyu ñoo fi indi ci exposition yi ñi nga xam ne moom ngeen jot a gis ni ci matériel yi. man la mbay Ndiaye responsable commission santé bu secrétariat jeune su dee màggal gi na Serigne Khadim moom laa si topp mooy adjoint sama adjoint mooy sama adjoint ci responsable santé bi mu dénk ma koy it si liggéey bi yëpp sunu liggéey nag ñun sous commission santé tàmbali na depuis waa base tàmbali depuis waa base tàmbali ba léegi ñu ngi fi chaque chaque jour ñu fi indi benn élément ngir mu couvriral ñu maladies yi fi am yi nga xam ne mën nañ koo téye yi mu téye ñu référé leen au niveau di centre de santé yàlla dogal na nag boobu ba léegi yaakaar naa ñaari cas rek lañ fi amagum yoo xam ne. wala ñett yu ñu supérieur ba ñu référé leen benn bi bokkoon si Louga waa Louga la mu doonoon seen benn membre base bu ñu fi indi woon yàlla doon ñu référé woon ko centre santé bi beneen bi Touba yaakaar naa moom yàlla dafa tànk moo loxo bi moo demoon yow moom it yóbbu nañ ko def nañ sa lan war a def ba faj nañ ko daal kenn ki tey la woon mooy benn xale la woon bu dëkk Taïf yàlla dogal saret laaloon ko moom mi ngi. instant mi ngi jànnatu ak suñ benn élément boo xam ne sous commission bi la génne euh, di élément santé te it ñi fi nekk yëpp it duñ n'importe kii lañuy dugal ci santé bi ñi nga xam ne ñi fi nekk ay agent de santé lan ñoo xam ne xam nañ ci garab dara ak faj ak li ñoo fi nekk di couvrir ñi ngi garab yaa ngi fi depuis lors liñ fi ëpp luñ fi am nag moo di ay bopp yu metti ay blessure ay biir metti aki ndaw ndawaan feebar ndaw ndawaan yoo xam ne ñoo la fi am amagum amaguñ fi kenn koo xam ne it ku sibru la wala ku nangam amaguñ ko fi waaye nag wax dëgg yàlla liggéey bi mi ngi dox xale yi ñi ngi koy def ni ko ni mu waree euh, donte ñun amuñu temps ngir toog benn place waaye ñoom ñi ngi koy def lépp loo xam ne gis nañ ko te mu xaw leen a sut te mu tolloog jub ñoo ñu koy jox ñu koy ñu koy def. sous commission bi dafa am dafa doon sous commission bi essentiel si mbooloo mi mënut a ñàkk si doomu aadama di xamal Sénégal yi mbooloo mi yëpp ñu gën ko jox gëddaam ndax euh, waruñoo toll foo xam ne mboolem waru toll foo naan section yi indi leen ay dotation dañoo war di am dotation garab boo xam ne day dooy sëkk nga xam ne day am doy sëkk ñu mën koo liggéey liggéeyin boo xam ne nii doo euh, ku fi ñëwit sa aajo dafa jo ndax indi section bi nga ne indi paracetamol boo xam ne ñetti dooma see des wala leen nit am na loxo lu ko gën dem am garab yu doy ngir ñu ñuy jox ñu mën a amee garab yi doy ak matériel bu doy ngir ñu mën a am couverture bu doy daal loolu daal laa xam di leen sant nag yéen waa communication bu baax a baax si liggéey bi euh, coono yi bëri na trop waaye nag ñu leen sant bu baax a baax di leen gërëm. di leen siyaar di leen jaajëfal it raw na su comme soo bii nga xam si mooy ñëw di def si liggéey bi dina ñaan yàlla suñu borom doole jàppale si seen liggéey. waa taayu màggal de ni ko baaxoo defee rek ci màggal gu nekk comme soo social bi am benn su comme soo berne boo xam si da ngay def ngir jàppale comme soo sensio ci wàllu berne ci xeet yu yaatu yi ci nga ñu fekkee ñu koy defar ngir waajal ko guddi ngir nit ñi nga xam si ñoo nekk ci bis bi li borom bëggoon ci bis bi lépp ñu def suñ suñu kamtulaay kàttan feex ba defal leen benn xeeti benn yu yaatu te taw feexe lool ci nga ñu fekk ñu waajal bokk na si xeetu beñ beñ bi ñu defar ngir waajal ko waaye am yeneen xeeti benn ñu waajal tamit ngir def li nga xam si ne mooy tàngal kafe di ko jox nit ñi ci guddi gi wante di def meew tamit di ko jox jànkat yi yi waaye di taxaw ni ñi timit ci attaques yi nga xam si xëy na nit ñi danañ ko yittewoo lool moom it sa guddi gi ñu koy baaxoo di ko taxawee noonu ñeenti xeer xeeti berne ba yi nga xam si moom leen taxawoo ren ji ngir ànd kook mboolum ñi nga xam si ñoo màgg ci bis bi. ñun Abdou Ba lañ tudd dëkk section Taïf nekk responsable organisation section Taïf euh, ñëwoon teew fii ci waañ wi nag yàlla dogal ñu jiite ko ànd ko ak euh, Thierno Sarr bi dëkk Touba yi doon doxal fan yi nga xam ne moo jiitu moo jiitu liggéey bi moo jiitu màggal gi yëpp ñuy ñëw di coordonné moom rek ba ba ba ci biñ ne ginnaaw suba lañ ñëw doog a doog jublu ci li nga xam ne moom mooy mooy mooy liggéey bu mag bi waaw loolu daal mooy li nga xam ne moom lañ defagul. mu mel ne section yëpp itam teew nañ fi yabal seen ñi nga xam ne moom lañ leen laajoon ci ay nit ñu ñëw daje fii euh, démb def añ bi def reer bi. Euh, tey itam ñu xëyaat nekkaat ci nekkaat ci liggéey bi mu nekk nag liggéey boo xam ne bu tar la ndax kenn ku ne xam na ne xéewal yi xéewal yi wàcc fanaanee wàcci moom moo tax euh, liggéey bi dafa dafa tar dafa tar lool wax dëgg yàlla ci journée bi euh, waaye teewut lépp li ñu waroon a def rek ñi ngi ci ñi ngi ci te dara manqué wut waaw ñu ngi koy def bu baax a baax a baax. nii ñi ngi ñi ngi taal di toll ci trois cent trois cent kilos maanaam toll ci fukki mbana ak juróom moom lañ moom moom lañ def fi mu ne nii nii ci añ bi. aw sant rek sant gërëm euh, section yi nga xam ne teew nañ fi yëpp lu mel ne Louga ak Taïf euh, Kaolack ak Touba gi ñu nekk ak yeneen section yi yëpp gu ci nekk liñ ko laajoon li waxoon ne dana ko indi ci ay nit andi na ko am na ci yoo xam ne sax liñ indi ëpp na ko te su fekkoon indiwuñ wuñ ñu ko pour kon tey dina am jafe-jafe ndax bi taw bi démarré rek dafa indi ay coppite yu bëree bëri ci li nga xam ne moom mooy moom mooy liggéey bi waaw ñuy sant bu baax di gërëm rek di di di yokk a gëm li ñu nekk. waaw loolu daal moom lañ def fii ci waañ wi